maa ngi nuyu mbooleem ku fi teew waaye di sant yàlla mi ñu may ñu mébét bés ko bés bi fekke ko tal ko mu mel nii nga xamante ne nii lañu ko ñaane woon suñu borom kon ñu ngi sant yàlla bu wér maa ngi nuyu kilifa diine yi fi toog di nuyu kilifa aada yi fi toog di nuyu responsable politik yi di nuyu la jeunesse di nuyu président fal askan wi waaye nag di beral nuyoo et mention jigéen ñi ndax nag wax dëgg neex yàlla président jigéen ñi mention spéciale waaye fu ñu teg seen tànk rek dañoo xam ni fuñ leen fulaalee la fuñ laan faydaalee la ndax ñun dañoo commencé di daw di wax émancipation de la femme di wax égalité genre di wax parité boo xamante ne effective agul sax faf nag nga ñëw teg fal askan wi loolu mooy ñun egg nañu ci orientation bi nga xamante ne moom la ñu soxla woon ndax soo nee peuple bi defe naa ne li ëpp ci peuple bi ay jigéen lañu kon suñu falee askan wi jàpp nañ ne li jigéen ñi doon daw yépp egsi nañ fi mooy seeni mébét bokkoon ci développement réew mi waaye jëlal seen bopp seeni soxla fal askan wi faj na loolu du ma sori tey ci samay wax ndax nag orientation bi ak perspective fal askan wi moo fi andi askan wi kon baax na yow mi président nga ñëw leeralal nit ñi li nga xamante ne mooy réellement li leen fi andi tey ñun jigéen ñi dinañ am yeneen occasion yu ñu teewee pour mën a càmbar suñu mbir wax ko wax ji day gàtt lool. ndax concept bii moom defe naa ne kuy jigéen gis nga ci sa bopp kon damay woo sama moroomu jigéen ñi ñu nekk ci secteur informel bi ñu nekk ci développement bi ñu nekk ci politique bi wan leen nekk li ñu doon xaar egsi na muy fal suñu bopp fal askan wi président da wax le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ñun ñu ne face à face askan wi avec les femmes pour les femmes et par les femmes donc dañ lay wax ni jël nañu suñu yëf te fas yéene nañ ko téye te suñu kër gi di kër askan wi dañ ko fas yéene wéttali ko nag bu soobee yàlla di ñaan yàlla objectif yi ñu am ba taxawal fan askan wi yàlla nañu ko yàlla defalalee ci suñu kër gii te gëm naa ne sax yàlla ñu dimbali ci objectif yooyu ñu am ndax kilifa yu tedd yi fi teew ñoo fekkee bés bi ma di la fàttali sama sëriñ sëriñ Saliou Touré délégation ma ngi nii toog di wax waay Thiès rawatina jigéen yi carte fan askan wi nag génn na mi ngi nii carte de membre fal wi génn na mi ngi nii suba incha allah ku ñëw ci këru askan wi di fi fekk carte fal askan wi jigéen ñi nag kenn di leen ci ëppale macha allah naa ne bu subaa bu ñu xëyee di ubbi bund bii dina fekk ngeen di buuxante kon yàlla kër gi nekk kër gu sedd ci ñun monsieur le président li nga mébét ba taxawal lii yàlla na ko yàlla mottali Thiès gépp ànd ceeg yow senegal gépp ànd ceeg yow même au niveau international ndax wax dëgg fa neex yàlla lii moom lu ñu doon xaar lu yàgg la gis nañ ci suñu bopp damay gàttal kàddu bi ndax yow na mbooloo mi xaar jërë ngeen jëf maa ngi am mbégte teew fii tey kàddu gi sax bett ma lool mais ma nangu ko ngir yàlla ak président Talla Sylla man nag soxna Julie mu sëñ Saliou lañ nag ma nekk fii si Thiès juddoo fi yaroowuma fi waaye fii laa judd yor fi kuréel buñ naan GIPSOA ku ne xam na ma ci société civile mais fi sama rakk daanale léegi daf ma neex mooy na waa Thiès comprendre mouvement waa Sénégal nañu comprendre mouvement man de ni ma ko dundee président Talla wax naa la ko sa bureau te noonu laa koy doxale te yàlla rek kat ndax bëgg Sénégal bëgg sama ville Thiès may nuyu di sargal madame la présidente yaakaar naa ñun ñi ne ci société civile def différence bi day yomb si ñun parce que président mouvement la ñu am ak présidente mouvement man nag personnellement lancement mouvement bi fekkuma fi waaye dama jokkoog ñi ma war a jokkool ne leen j'adhère au mouvement pour deux choses askan wi xëy na président Talla ni ma koy faral di waxee dafa am intuition mais ñu jël seen yëf mi ngi ñëw parce que mbappatum suuf mi daanaka yegg nañ parce que kenn dofatu kon moom bu amee clairvoyance taxawal mouvement woowaa Thiès man de dëkk Thiès moo tax ma wuy ko mais bëgg senegaal tax na ma wuy ko pour ñu doxal doxal mooy askan wi yëg ñi nga xamee ne fal nañ leen ne ñi ngi seen wet te ñun de yëg nañu Talla Sylla ñu ngi ñaan yàlla dolli ko wér comme dafa guddi man li may wax fii rekk mooy asgor la te duma waxantu am na responsable politique yu bari sax tey sama teew fii jaaxal na mais société civile ñun dañuy def politique mais manière bi ñu koy defee mooy ñun ñu ngi ci wetu askan di jéem a doxal kon bu ñu amee une personnalité politique bu comprendre loolu woote mouvement dañ koy fekk si si biir mouvement fekk si ko en tant que partenaire jàppale dans la mesure du possible jàppale bi nag ñaari fànn la mën a doon massification bi mais nañu am des yu ñu posé nañu opérationnel parce que meeting woote mbooloo yomb na mais liggéey bii tax ñu am ñu teewal assemblée nationale mais bu ñu jël rek assemblée nationale def ko objectif mante objectif bi ma lay wax président jàmp na danga nga am inspiration gis naa sa couleuru kër gi te nga bokk ci benn programme mondial Thiès ville vert bërki démb délégation marocaine bi nga xamee ne recevoir nañ leen Dakar xamal nañu ne le 14 novembre bokk nga ci ñi ñu yaakaar gis Marrakech ci ndaje boobu ñu ngi la fay xaar incha allah maa ngi gërëm ñëpp di sant ci kanamu mbooloo mi fi teew yëpp rencontre bi ñuy woote tey c'est une rencontre hautement politique boo xam ni la vérité mooy mbooloo mi fi teew ni ñu jógee fu ne ni ñu bokkee fu ne mësul am ci rencontre politique te loolu rekk c'est déjà redonné le pouvoir au peuple sénégalais mbooloo mi fi teew tey su nit ñi seetloo fu ne la ñu bokk ci association de développement yi ci association de femmes yi ci association communautaire yi ci communauté religieuse bu Sénégal ci kilifa aada yi ci kilifa diine yi te bu ñu fi teewee tey mbooloo mu bëree noonu bokk fu ne c'est parce que ki fi dajale mbooloo mi tey la ndax c'est un homme de dimension internationale muy Talla di nuyu ñëpp di nuyu ñi ñu fi tax a teew tey muy askanu senegal ndax tey su ngeen seetloo ni toogaay bi bindoo ngeen xam ni ki jiite fal askan wi mi ngi wax nañu def précision ne du fal askan bi mais nañuy wax fal askan wi parce que moom dafay insister ci langue nationale yi day insister ci suñu aada day insister ñun sénégalais yi ak ñun africains yi li ñu moom ba bëgg bu ñu koy wax rek ñun ñi nga xam ni colonisation bi daf ñu yàq ba suñuy tubaab rax suñuy olof ba mu ëpp muy fexe ba nekk suñu professeur ñu koy waxee ni ñu ko war a waxee donc tey peuple sénégalais moo woote tey askan wi moo woote moo tax tey mbooloo mi fi teew yépp teew fi li ñuy njëkk a félicité woo mooy fal askan wi bi mu taxawee yàggul bi ñu defee lancement bi yàggul ñu ngi ko defee woon fële ci agora bi boobook léegi ay weer rekk la am waaye tey ci jotaay bi toutes les régions du Sénégal son présentes tous les départements du Sénégal sont représentés fi nga xam ni ñoom lañ moo fi la ñu teew pour wane ni rek yëf yi nag waa Thiès il est vrai que sax nañ ci sàpp waaye moomuñu ko ñoom rek pour wane ni yëf yi il est vrai que waa Thiès sax nañ ci sàpp waaye du ñoom rek ñoo ko bëgg pour wane ni yëf yi waa Cees saf nañ ci sàpp waaye du ñoom rek ñoo ko gëm ndax fal askan wi tey mooy concept bi nga xam ni boo ci woowee waa Sénégal yi nekk ci biir Sénégal ak ci biti ñu fekk si la ci parce que depuis bi ñuy am indépendance ba léegi nit day jóg rek moroomam toog waaye falaguñu askan wi moo tax bi ñu euh, le président tàll si la woowee waxtaan feeg ñu bari ne dama bëgg nag li Sénégal moom li peuple bi moom ñu delloo ko moom mu falal boppam fal boppam tànnal boppam tànn boppam moo tax ñi mu ci woo ñëpp ak fu ñu mënti bokk ñu ñëw wuy si ko ci ndax loolu mooy dëgg te loolu moo ñu war suñu indépendance ñu ngi ko am depuis 1960 nous avons connu beaucoup de déboires développement bi ñuy xaar ci Sénégal ba léegi dañu koy wut rek di ko séen waaye yeggaguñu fa comme nag essayé nañu nu ne ñu delloo ñi moom yëf yi muy askan wi su ko defee ñoom ñu tànnal seen bopp tànn seen bopp ndax nit. yëfam bu ko téyelee boppam du ci def lu jubadi du ci def lu dëng du ci def njuuj njaaj ndax yëfi boppam la am na solo que euh, le président Talla Sylla woo nit ñi ci loolu waaye du n'importe qui moo mën a wane woo nit ñi ci loolu parce que bu nekkee yow ci sa histoire politique nit ñi dañ la xam ci abnégation xam la ci fidélité xam la ci amour pour le peuple sénégalais xam la ci sa volonté wu développer sa réew à travers les esprits à travers les comportements boo ci woowee nit ñi ñu ñëw wuy si la ci loolu moo tax tey Sénégal yépp ñëw même au niveau international nit ñi dañuy woote fu ne naan dama bëgg a bokk ci fal askan wi ñun leen fal askan wi du ngeen ci bokk parce que yéen a ngi ci ba léegi ba ba pare ndax yéen yéen a ko moom moo tax ñi ngi remercier bu baax le président Talla la bi mu ñu woowee ci yoon wi parce que yoon la nag c'est une voie à suivre pour sortir notre pays du trou c'est générosité bi ak wone esprit bi nga xam ne mooy esprit fal askan bi moo ñu taxawal kër goo xam ne kër askan bi la tey nag lii lancement la ñuy wax askanu Sénégal nañu ñu xaar ci gox goxaan yi dinañ leen fekk ci quartier yi ñëw taxawal cellule de base yi parce que askan bi bu ñu leen bëggee fal il faut ñu fekk leen ci base bi fekk leen seeni kër fekk leen seeni koñ donc nañu ñu xaar ci koñ yi xaar ñu ci communes yi xaar ñu ci département yi xaar ñu ci région yi xaar ñu ci Sénégal yépp loolu dañ koy wax ne nit ñi nañ ñu xaar ñu ngi ñëw ci ñoom pour waxtaan ak ñoom président bu jëlee parole dina leen indil lan mooy esprit fas fal askan bi lan mooy feuille de route bi yooyu dina ci dugg mais xam naa ne massification bi à partir d'aujourd'hui lay démarrer te balaa muy taxaw dañoo dem assemblée nationale delloo ko askanu Sénégal ñu taxaw ci ité askanu Sénégal ndax loolu mooy échéance électorale bi gën jege. donc askanu Sénégal dañoo bëgg ngeen fal seen bopp ci assemblée national bii di ñëw bu ngeen koy fal nag da ngeen di ànd ak ay nit ñoo xam ne dañ leen a fale ndax exemple maire de la ville de Thiès fal nañ ko mais fale na askanu Thiès ndax mi ngi leen fekk seen i quartier mi ngi dem seen i ngénte ku ci am tiis mi ngi taxaw ci sa wet lu mu am dërëm ñaar dërëm mi ngi ko ciy def di xañ waa këram mais aussi di jël alalu Thiès delloo ko waa Thiès te yaakaar naa ne Sénégal loolu la ñuy wut ci njiit donc loolu Talla la boobu dafa am ñu mu àndal ñu bokk ak moom jikko bokk ak moom xalaat ñu mel ne la présidente des femmes de Fal Askan bi madame le maire Maïmouna Dieng ñu mel ne. donc dañu bëgg assemblée nationale bii di ñëw xam ngeen ne si la nekkoon na fi assemblée nationale ñu ñun ko li tax nga démissionné mu ne askanu Sénégal moo ma fa yóbbu woon te li ma taxoon mu yóbbu ko mu war leen a défendre ñu me doo ko fi waxeeti doo ko fi defeeti ma xam ne lu ma fi toogaatee lu ma fi lekk riba ma génn foofu te boobu il était vice-président à l'Assemblée nationale donc tey il nous faut beaucoup de Talla Sylla à l'Assemblée te loolu à travers le mouvement Fal Askan bi lañ ko mun am ndax ñoom ñoo épouser ay valeurs Talla Sylla ñoom ñoo épouser ay préoccupations ñoom ñoo am esprit de dépassement esprit de sacrifice pour seen réew il faut ngeen xool ni ngeen di tànn te bu ñu ñëwee ci gox-goxaat yi dinañ ci waxtaan ak yéen ngeen seet ñu leen doy ci askan bi ngeen tànn leen ñu mën leen a tabb ñu mën a nekk à l'Assemblée nationale yore la majorité mën a jëmale Sénégal fi nga xamante ni. mooy koy amal njëriñ mooy ñuy xëy di gont di guddi ak bëccëg ci soxla askan bi fexe ni ñuy jëmalee Sénégal kanam njàng bu jëm kanam soxali jigéen ñi jàppale xale yi jàppale mag ñi taxawu diine ji Sénégal mën a jëm kanam secteur informel ak yëpp bàyyiwuñu dara kon encore une fois ñu ngi lancer un appel à tous les Thiessois à l'ensemble du peuple sénégalais à toutes les populations wax leen aussi ne ñu ngi jëm ci processus bu bees ndax ay carte d'identité yu bees mooy am ak ay carte électeur loolu ñu ngi lancé appel au nom de Fal Askan bi wax population yi na ñëpp dem wuti pièce d'identité ñëpp nañu dem ku dem wuti pièce dante na nga waxaale man damaa bëgg a doon électeur ndax tant que waxuloo ko duñu la ci boole loolu mooy loi bi taxaw donc na ñëpp jóg ku amul arme doo dem guerre bu ngeen bëggee fal seen bopp te amuleen arme te arme bi mooy carte électeur mooy carte d'identité du ngeen mën a fal ku mel ne si la wala ku nduróog moom jikko ba mu mën a taxaw ci seen soxla asalaamaaleykum wa rahmatullah